xam ne yaakaar naa ne am merengue donte manub du ma nga waaye wax dëgg yàlla football meilleur dañu ci jàngat lu ama am solo ma leen bu baax a baax yaakaar naa ne xibaar yi ñaari ponk la Mikayil Ngor Faye moom lañ koy jeexale international sénégalais la gone Barcelone yi dajaloo na nag ci digg pénc ma waxtaan daal di bëgg a déggoo ci ay kàddu moom moomee nag xam nañ ni li muy fayee ko tuuti na lool tey taxawaay bi mam ak ambition yi ak fi mu taxaw ci défense Barcelone bi kookee ku ko yokkal maanaam njëlam yaakaar naa ne bu boobee dana baax tey dana mën a tukkal àdduna loolee bokk na ci xibaar yu wér te wóor yi ñu bëgg a ma Alaaji moo ne ci kaddu gi ma gërëm leen sant leen sàkku ci yéen abonnement yi ndax abonnement boobee dana tax lépp lu ma mën di dugal nga mën ko coppati lool bu ma gisee image bi ma ni tuuse ma Sénégal bi muy gagné li lay di Coupe d'Afrique des Nations fële ca Cameroun daanaka bi Sadio Mané ñañ international sama waa ji dugalee bit ba image bi daanaka équipe bu Sénégal bi ba nuy daw di yuuxu image bu mel nii la ñu andi woon image bi nag nag coo naan ndes moom naccoo mi sikki mu ab président am yaakaar naa président bu xol ba sedd guy moom la am ci naccoo bi nga xam ne est-ce que mujjewul sax yor capitaine bi ca équipe bi match bi jeex ndax fekk na booba taxawaay bi nga xam ne am na ko ca ca boobee équipe taxawaay boobee na solo bu baax a baax yéen ñi di topp information yi euh, service commercial bi numéro baa ngoogee ci kaw ni fang yéen nga xam ne daanaka bëgg ngeen a sponsoriser ay émission fii ci kër gi bu ko defee ngi jàmb ko ba mu saf sàpp loolee daanaka danañ ci mën a waxtaan ak yéen bu baax a baax ci service commercial moom Fede Valverde euh, Fede Boy moom it bokk na ci ñi nga xam ne match boobee ñoo ca gën a xarañ waa gone UEFA yi nag xool coytu seen i ni kii kat wax dëgg yàlla football bi mu football tey ci man Manchester City yaakaar naa ne moo coppate bànneexu footballkat yi doon football yëpp seetaankat yi jox nañ ko loxo ñëpp jébbalu nañ kon mooy footballkat bi gën a xarañ fekk booba Mikayil Ngor Faye international sénégalais mi ngi football défenseur euh, moom moomee tamit bari na entretien bi Aladji Malick ci xëtu yaatu waaye moom gone gi daanaka Barcelone dafa waxtaan ci pénc ma bu ko defee mu yuuxu ñu daal di koy def maam mu nekk footballkat bi nga xam ni day fayeeku lu bare bari ca Barcelone loolee yàlla na ko dal kon ci kanam tuuti yeneen information jërë ngeen jëf